waaye suñu question day dem ci suba euh, le président Macky Sall wala prêter serment fële si Diamniadio yow nan nga gisee prestation de serment boobu ak victoire bi euh, lépp laat waaw jërëjëf euh, maa ngi lay remercier bu baax di la gërëm aussi ci invitation bi bon, Macky Sall, le président Macky Sall a eu une éclatante victoire parce que cinquante pour 58%, c'est déjà quelque chose. Donc nous sommes gërëm yàlla di ci sant yàlla di ci santit euh, kilifa diiné yépp ci ñaan yinu ko ñaanal ba yàlla may ko lii suba nag la prestation de serment bi comme li ngay wax euh, dana ko def ci jàmm ak salaam waat ci kanam askan wi yëpp pour li mu bëgg a def ak yéeneem ak li ko constitution bi dénk réew mi dénk ko ko pour juróomi at yii di ñëw ca ragal naa ni président Macky Sall euh, continuité lay def dana defit changement xëy na ci méthode yi ci nit ñi et tout ça parce que daf ko laaj président Macky Sall politique na li mu doon politique léegi li ci des mooy liggéey li ci des mooy gloire parce que sénégalais yi sas nañ ko wax nañ ko seen cofeel ci moom malgré que am na 42 pour cent yu ko woteelul mais tey dana fexe ba 42 pour cent yëpp am mbégte ci moom te loolu lañ koy ñaanal yàlla parce que 42 pour cent yooyu moom mooy seen président kon li ko war mooy mu liggéey def li mu war a def lépp te loolu mooy yéeneem loola taxoon mu bëgg réew mi te ku gis li mu def ci sept ans yi xam ni Macky nit président Macky nit ku bëgg liggéey la nit ku bëgg Sénégal la nit ku gëm Sénégal la. Euh, Père nee nga léegi léegi euh, li mu bëgg mooy liggéey Sénégal wante Père Gaston bu jàllee après prestation serment bi xam na nii dafa war a teg gouvernement bu bees gouvernement ba nga xamante ne ñu bëri ñu ngi koy xaar lu nekk ñu ngi ciy wax ñu ngi naan am na ñuy am na lu bees am na lu bees yow lan nga ciy xaar ak lan nga koy digal. moom li ci bopp Macky président Macky Sall moom rek ko xam. keneen ku leen ci wax leneen day waxantu rek ak def ay supputation mais li ci bopp président Macky Sall moom rek moo ko xam ca président Macky Sall am na intelligence am na aussi honnêteté boo xam ni euh, képp ku ma ku taxaw nii buggul réew mi day wax lu ko neex réew mi la gëm réew mi la bëgg def na sept ans sept ans yoo xam ni daf ko ànd ak ay ànd ko kay ay nit yu mu àndaloon en 2012 ba léegi mu continué ànd ak ñoom mu nekk coalition bi gën a yàgg ci coalition ci histoire du Sénégal tey kenn du ni deful ay erreur erreur ku dul yàlla rek moo ko dul def ku dul juum amul mais moom en tant qu'homme d'État su fekkee ni juum na su fekkee ni def na ay erreur dana ko reconnaître te dana changer changement moom dana parce que suñ demee ba 42 pour cent woteeluñ ko c'est parce que am na ñoo xam ni gisuñu ci seen bopp. loolu yëpp dana ko jéem a rectifier changement it dana am mais la ca boppam ak na ña changé ak la muy def moom rek moo ko xam ñu bàyyi ko nag vraiment ak euh, loolu mu def choix am ñu koy ñaanal ko que choix muy def rek erreur bañ ci am ci ragal naa ni erreur du ci am parce que am na lu bëri lu mu jàng parce que nag comme je dis toujours le président Macky Sall l'a fait souffrir on l'a fait souffrir ci jamono yi ci ay allié ay àndandoom parce que nag générosité bi mu am moom. àndandoo yi amuñu ko waa partem amuñu ko non déggoo li ma la wax ci peut-être euh, manque de générosité am na ci ñoo xam ne am na manque de loyauté parce que manque de loyauté fépp lay am sa biir kër sax mën nga fa gis ñoo xam ne loyalul yaa loolu da koy souffrir loo parce que moom fay na ñëpp bor bi li mu seqoon ak nit ñi def na ko yaakaaroon na ni aussi li mu li mu yéene nit ñi di nit ñi dañ koy delloo lépp à 100 pour cent kenn mënul na nga am unanimité loo xam ni yonent bi amu ko sallallahu alayhi wa sallam loo xam ni sëñ tubaa amu ko laaj maam laaj Malick amu ko Macky Sall mënu ko mais moom li wóor ba wóor mooy képp ku ko souffrir woon it Macky Sall nit njaay la xam na bu baax xam na réew mi kuy tricher xam na la ku dul tricher xam na la ku defe ne yaa ngi koy nax xam na ko ku ko naxul xam na ko. Hmm. léegi loolu nan eh, mais Macky Sall président sénégalais yëpp la mu démissionné APR ak mu bañ a démissionné APR kooku am lay doon man tuuti naa trop ci jéem ko euh, démissionné parce que euh, su ma nee su ma nee euh, politiqueatul parce que ñi tëdd seen kër sax ñu ngi politique. mais su ma nee politique tout mooy privilégié tout politique bi réew mi la privilégié tey li ko li li ci boppam Macky Sall dëgg dëgg dëgg kenn xamu ko mais yaakaar naa ni tey Macky Sall gloire rek la bëgg réussite rek la bëgg ca booba ba léegi li mu liggéey ci Sénégal ñëpp xam na ni kii liggéey kat la tey su sañoon loolooy continuer li mu fi def mu multiplier ko par 3 wala par 4 ba nga xam ni le la bis bu fiy jógee en 2024 dana ko bàyyi ku koy jël da nga xam kii bàyyil na la loo xam ni un bijou léegi liggéey rek a des ak continuité continuer li mu fi defoon moo fi des. Euh, après victoire am bi dafa génn woo opposition bi ci dialogue mais ñu seetlu ni opposition boobu wuyuwul ci ci ci ci woote bi Macky président Macky Sall woote léegi yow nan nga gisee dialogue politique boobu de tout euh, euh, depuis tey ci journée bi yëpp ñu ngi wax aussi que nii l'ex-maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall sax président Macky Sall daf ko war a gracier yow nan nga gisee appel au dialogue gis appel au dialogue bi lu baax la parce que Sénégal yëpp ko bokk comme l'a dit le président Macky Sall moom tey ku ko woteel ak ko woteelu yëpp mooy sa président tey sañoon ñëpp benn la ñuy nekk et politiciens yi nag am na ñoo xam ni sunu bañee appel bi mooy buggunu Sénégal seen bopp rek la ñu bëgg ak seen intérêt bopp parce que lii am moom am na ba pare yàlla dogal na ni Macky moo falu moom lanu fal moom la euh, majorité bi fal ci kattanu yàlla su fekkee ni nit ñi bëgg nañu Sénégal mag dañuy ñëw xam ni kii juróomi at yii ko fi desee ànd ceeg moom suñu bëggee changé lu nu ñu bëgg a lu ñu changé lu ko ci juróomi at yi ba nga xam ni suñuy ñëw en 2024 Macky Sall le président Macky Sall arbitre lay doon mais mënunoo toog fu fële di wax jalagunu jalagunu ca saa yi ñu génnee dara ñu taxaw di kaas kooku moom euh, kenn mënu ci dëkk le président le maire de Dakar Khalifa Sall Macky Sall tëju ko ca Macky Sall c'est son frère Macky Sall yéenewu ko lii ko daal yéenewu ko Karim Wade man loolu lu ma wóor la tey wóor na ma ni li ñuy wax ci soo ba tey ci presse bi ni dana ko dana leen gracier loolu ñëpp ko ñëpp a ciy kontaan parce que ñun ñëpp ay doomu Sénégal lañu ca Macky Sall le président Macky Sall sañoon tey eh, kenn du am lu la naqari parce que ñoom ñëpp am na fu nu jaar politique a demee noonu rek et tout ça ca it nag may wax ni il faut ñi ànd ak Macky Sall généreux am loyauté respecter aussi Macky déggal ko ca bañ a toog di ko fakastal comme li fi xewoon ci mandat bi passé nga xam fa am ay bukki yoo xam ne ay bukki yu nekk ci biir palais bi di matt nit ñi di matt waaw am na yu bëri yoo xam ni Macky Sall mënu la xam lépp président Macky Sall nit rek la. yàq rek yàq yàq rek lañ dëkke woon ak di ko booleeg nit ñi loolu mooy manque de générosité parce que dañ faa nekk defe ni suñu yaatalee nit ñi nit ñi jël seen place loolu lépp Macky Sall ko muñ. mais dañuy Macky Sall nit njaay la dana ko xam mais da koy muñ. parce que dafa àndoon ak ñoom ba dara dul dara mais ànd ak nit ki ba dara dul dara mais kenn xalaatu jiwoon kenn falu leen ñoom Macky Sall la ñu fal man li nu nekk Macky Sall leen ko nommé donc Macky moo leen def ñoom li nu nekk mais nag bu buñ ci boole waale fiir ak manque de ba nga xam ni tey amee mel ni ay bukki rek di matt nit ñi ku baax ku Macky Sall indi ñu bëgg bëgg laa xatal pour bëgg nga jóge foofu pour des fa ñoom les médiocres rek loolu Macky Sall a moo tax tey il a libéré tout le monde et il il a libéré tout le monde et il s'est libéré Macky ku mu fay fay na la léegi na ko nit ñi jàppale na ko Sénégal jàppale sëriñ si ñaanal ko parce que Sénégal rek ko fi tax a toog mu toog liggéey. Euh, parce que tey wax naa ci benn seen benn conférence it bi ma waxee ni Mimi Touré la dame Mimi Touré et une dame man moom laa mujj xam sax ci politicienne mais koo xam-xam ni am na personnalité am na mérite bi elle est politique. am na njàng mi am na fulla gi am na fayda gi ba nga xam ni tey góor ñi sax góor ñi ñemewuñ ko ba buggunu sax mu si parce que ragal na ni su agsee la mu mënal Macky Sall ak na muy défendre Macky Sall ñoom ñëpp kenn du ko ci def. ñoo ko doon xeex mais fii ñu toll le président Macky Sall nag euh, nandite la. elle a fait ses preuves nandite la koo dénk parrainage. comme keneen comme ko fi dénkoon heure bi xëy na leneen am. mu wëlbatiku jël dossier mandature am jox ko ko mais à ah, mais ni ko demal nga jox ko président conseil constitutionnel mu jógee fa def ko jox ko campagne bi ànd ak moom 21 jours xam na ni kii ba mu ko ba mu ànd ak moom 2012 ba léegi te mu jëlee ko fi pendant 5 ans ndaw si bronché toog ak garder loyauté ak euh, dignité ak léppam kooku yombul. Gaston dañuy jeexal lan ngay xaar pour Mimi Touré kon pour Macky Sall. man de su ma mooma su fekkee ni Boun Abdallah sama rakk Boun Abdallah Dionne xam nga sama rakk la su fekkee ni dañu remplacer pour remplacer rek la jëlee ko fi rek la teg Mimi Touré Mimi Touré fi sës keneen sësu fi. Ah. kon yow daal da ngay woo bu ñu fi naree jëlee Boun Abdallah. suñ fi naree jëlee Boun Abdallah Dionne ah le meilleur choix c'est Mimi Touré su fekkee ni Boun dafa sonn comme ni ñu koy ni ma déggee ñu koy wax ci presse bi wala leneen wala leneen de toute façon le meilleur choix. koo xam ni tey mën na accompagner le président Macky Sall pour ces cinq ans là loyalement je dis bien pour Sénégal jariñu ci euh, vraiment jigéen la mais moom la